الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني نوّر جناني صفي أماني وزد برائي إليك تبت توبة نصوحا واجعل لساني في الرضا فقيها wajaal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa xalbi arshida barke borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki julli ni mbokki taalibe yi mu ngi leen nuyu te di leen ziyaare di jiital si noo bi Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan yàlla mu yàgg fi loolu tànn ak wér noonu lañ ko ñaanale mbooleem njaboot Serigne Touba gi noonu lañ koy ñaanale mbooleem jullit yi ak mbooleem taalibe yi nga xam ne baaxoo doonoo safoo ak di topp seen jotaay bii di daare xam-xam ci di leen indil téere yu am solo yi nga xam ne lépp ñaangalim sëriñ bi la di suñu njëriñu àdduna ak alaxira comme niñ ko baaxoo am la rek ba léegi ñoo ngi ci téere bu am solo di si xaar Euh, naka jekk di ci ànd ak sëriñ Abdou sekk mi nga xam ne moom ngeen baaxoo xam ci jataay bi ci bu leen di yi firil ñu am solo yi ak firil ñu leer yi ak firil ñu matale yi nga xam ne képp ku ko dégg rek wax dëgg yàlla di ci dolli ko ci lu la doy ci wàllum njàng mi nga xam ne njàngum xam-xam lay doon kon bu ko defee duñ def lu dul siyaar sëriñ Abdou di ko ñaanal di ko ndokkeel ci taxawaay yu solo yi nga xam ne baaxoo na ko taxaw ci télé bi ak ci liggéey bu am solo bi nga xam ne moo gënal sëriñ bi muy wasaare xam-xam bu ko defee mu siyaari mbokk taalibe bi nga xam ne ñoo koy seetaan bu ko defee ñëw ci njàngal bi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 asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi salallaahu alayhi wa ñu ngi fedd suñu jaayante ak Cheikhuna Ahmadou Bamba di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te wér ba lépp loo xamante ni am na yéene liggéey ko ci yoon wi mu liggéey ko akum xelam ànd ko bépp murit ci barke Xaadim Rasuul kon sëñ Abdoulaye nuyoo baa ngi noonu jërëjëf sëñ Abdou ci nuyoo bu matale jëf mbokki taalibe ko baaxoo amele rek ñi nga xam ne miin liggéey bi ak plateau bu am solo bi nga xam ne mooy aju ci téere sëriñ bi di leen toppal téere xam-xam yi nga xam ne mooy suñ njëriñu tey di njëriñ suñ njëriñu ëllëg ndax moo war a jiitu ci ab jullit rawatina ab murid bu aju sëriñ bi nga xam ne war a jiitu ci yow mooy nga jàng moo leen xam-xam yi nga xam ne sëriñ bi def na ko ci diine def ko ci eh, xam-xam ngir ñu xam fi ni teg suñu tànk xam lan mooy suñu far fardul yi xam ni li war ci ñun ñu tàmbaloon téere bu am solo muy tasawur zixaar ñu ñu leen ko junjee woon ak ñu ko sëñ Abdou firé woon ca tàmbali ba ba fiir agsi nga xam ne mooy yóbbu ndaw ñu téere bu am solo ba tey ñu nekk ci buntu bu am solo it muy xaj nga xam ne sunna sunna xaj nga xam ne sunna ju am solo muy loo xam ne jullit bu nee ko war xam muy faslun fii sunna nihi moom aj nga xam ne mu doonoon fukk ak ñaar ni ko sëñ Abdou leeraloon day mel ni amoon ngeen si juróom-ñett mu des ñeent yi nga xam ne moom lañ fas yéene yeggale tey incha allah bu ko defee mooy tax buntu bi mat bu ko defee comme ñu teewlu rek fan yemoon bu ko defee sëñ Abdou indil ñu ñàngale mi bu ko defee ñu mën ko déglu bu baax a baax a baax. alhamdulilah rabbil alamin kon xam naa ni nga ko waxee rek ñu ngi nekkoon ci di jàngale. alxajj. faraiduhu wa sunanuhu nga xam ne dañoo toll woon ci di jàngale sunnay aj ba limoon koo wax ne fukk ak ñaar la. Mm-hmm. fukk ak ñaar yooyu ñu xaajan ko. ñetti étape yoo xamante ni ñett yu nekk dafa am ñeenti yu ca nekk aju ci dara ci mbir léegi ñun leeraloon juróom-ñett yoo xamante ni jàngale woon nañ ko ci mbir jàngale ko ci ak leeral. tey hmm. ñu bëgg a dikk kon àggale ñeent yi nga xamante ni moo desoon ci bunt bi incha allahu taala. Hmm. nga xam ne comme ni ñu ko baaxoo defee rek mooy bu ñu dikkee dañuy xool lañu war a leeral. la ca nekk ci ay baat ñu jéem koo firi ndax kiy déglu te bëgg xam baat bi la ñuy bu ko defee. dana yomb ci moom nga xam ne ko ñu ngi taxawoon ci ramlu rijaali fi salaasil awwali summa duaa fi tawaafi ak njëli te ñu war ci wa arbaun li saan yi xublatul xajar sëriñ bi dana ne wa arbaun ñeenti sunna ci fukk ak ñaar yooyee mu waxoon li saan yi ne ñeel na dox safa ak marwa xublatul xajari mooy fóon xas xajarul aswad muy fóon xajarul aswad isa sahara ñeem nam naa génn ndeem nam naa bawoo minal masjid ca jàkka ja ca kaaba ga li safaa jëm safaa saaniyatul arba'i ñaareelum ñeent ya indal xudwati ca roytéef la suuduhu mooy ak yéegam bayna safaa ci diggante safaa wal marwati ak marwa wa suraati rijaali gaawu góor ña fi batni masiili ci bërëb bu ñuy wax batn masiil saalisatul arba'i mooy ñetteelu ñeent ya fi xawli nabili ci waxi aji am xel ja ci waxi borom xel ma ci waxi ko xellu ka summa topp ñeenteel ba ca ñeent yooyu aju ci dox safa ak marwa duuna fanadin ci lu dul fenn du'aahu mooy ak ñaanam fawqahuma ca kaw safa ak marwa ba mu yéegee ci safa ak marwa bi xayri xaddin ci lu benn limite nga xam ne kon ñeenti way yooyu wala juróomi way yooyu mooy way yi nga xam tey war nañ cee dikk fàttalente ci insha allahu taala kon loolu mooy li nga xamante ni moo ci nekk ci baat firimi hmm. noonu la kon xam naa dañuy dikk rek ci li ci tege incha allahu taala. jërëjëf sëñ Abdou ci firinu leer bu matale bi nga xam ne waxtu ne baaxoon nañu ko indil bu defee ñi nga xam ne baaxoon na noo yor seen téere di topp jitaay bi di ci jàng kon firin waa ngi noonu nga xam ne baat bu ne ak firin wa euh, kon mu doon ñeenteelu euh, fukk ak ñaar yi nga xam ne limoon nañ ko muy ñetteelu état bi nga xam ne mooy fukk ak ñaar yi ñetti pàcc la pàcc bu njëkk ba mooy ñeentee ci aju pàcc bi ci digg bi moom la leerool bii passé bi mooy pàcc bi ci mujj mooy ñeenteel yi nga xam ne moo matal la fukk ak ñaar yi nga xam ne euh, comme ni mu ko leerale kon bu ko defee euh, waxtu ne gars yi dañ ciy sàkku ay ay ay ndolleen ak leeral comme ni ko baaxoo indee ak ni nga ko baaxoo leerale bu ko mu gën a leer ci bopp yi gën koo mën a teqantal bu ko defee euh, du ci am benn lënt lënt boo xam ne dina dina ci nekk bu ko defee nga indulaat ñu loolu rek bu defee ñu indil ñu salaay ak teqantal yi nga xam ne waxtu ne baaxoo nga ñu koy indil. alhamdulilah rabil alamin hmm. comme niñ ko jàngalee woon rek mooy. Mhm. sëriñ bi dafa jàngale woon sunnay aj limoon ko ci fukk ak ñaar yoo xamante ni ñett yu nekk dafa am ci yum aju ñeent yu nekk dafa am ci yum aju nga xamante ni ba mu génnee groupe bu njëkk ba dane woon mi ngi aju ci al ihram te ñeent yooyu mooy al xuslu bi sës ca armal ba sangu janaab googu ak nit ki rafle gi muy rafle ci lu ñaw wala lu wër ab cëram ak sol gi muy sol li ñuy wax taraxlaay ak làmbaay ak ñaari dàll ñett ak nit ki wax gi muy wax labbayka nga xam ne kon ñeent yooyu mu njëkkalim moo aju ci al ihram ñeent ci tegewaat nee na mi ngi aju woon ci wër kaaba gi tawaaf bokkoon na ca dox ak tànk ci buy wër kaaba gi bokkoon na ca bu fekkee ne yoon wu njëkk wi mën ngaa foon doj wi ci sa gémmiñ nga def ko bu fekkee mënoo ko ci sa loxo bu fekkee mënoo ko fa nga toll nga mépp foon bi sunna si wàcc la da ko jëfee ba ca tege woon te ñetteel ko mooy bu fekkee ne yaa ngi wër kaaba gi na fexe bu wëree ko nii mooy bul yaax ba ëpp bul gaaw ba mu ëpp mooy lañu waxoon keroog baat mooy laggum góor ñi bi maanaa doo yaax ba ëpp tamit waaye doo gaaw ba ëpp ba ca tege woon mooy bu fekkee ne dem nga ba koy wër nga jàkkaloo kaaba gi ñaanal sa bopp li nga bëgg ñaanal mboolem jullit ñi tamit suñ borom fa seen aajo nga xam ne kon loolu juróom-ñett la kon tey dañoo bëgg a dikk ci ñeent yi nga xamante ni moo ci des te mujj ci bunt bi di mottali juróom-ñettee mu nekk fukk ak ñaar moo tax sëriñ bi ne wa arbaun ñeenti sunna ca fukk ak ñaar ya sëñ Ablaay li sax yi ñeel na dox Safa ak Marwa bi njëkk mooy xoblatul xajar yi. gisul kon waxaan na xoblatul xajar ndax waxoon na ko ci waxaat na ko waaye nag bii isa sahara isa sahara maanaam isa araada ay yaxruja mhm. minal ilal masjid ila ila safa wal marwa bu fekkee ne maanaam waa ji dem na ba def li war a def ca tawaaf ba ba war a génn mhm. ngir jëm safa ak marwa dañ ne dafa war a fóonaat xajar al aswad mhm. te loolu kon dañ koy limaale ci sunna yi aj xam ne sunna yi day aju ci dox gi nit di dox safa ak marwa kon benn gi noonu ay xublatul xajari isa araada ay yaxruja min al masjidi ila safa wal marwa bu mhm. fekkee waa ji dem na ba nam ma génn ci tawaaf bi jëm ma euh, ngir doxi safa ak marwa dañ ne day defaat xublatum saaniya lil xajar al aswad da koy mhm. fóonaat nga xam ne kon fóon boobu mu koy def dañ koy limaale ci sunnay aj mhm. ba pare sunna boobu day aju ci sunna yi aju ci ash bay bayna safa wal marwa nga xam ne kon boobu mooy bi ci jiitu nee na bi ko ñaareel mooy léegi nag bu demee ba war a dox safa ak wa yéeg gi mu yéeg ci kaw suuduhu bayna safa wal marwati maanaam yéeg gi mu yéeg ci kaw fekkee mën na ko waaye dafa kon bu fukk liñ ci dégg ko mënul tamit kon du force ci moom mu yéeg mhm. ndax bërëb ba na muy demee ak wa ak la ca des waaye nag fekkee mën naa yéeg moom mhm. yéeg mooy sunna sa mhm. kon bu fekkee mën naa yéeg te yéegut kon day bàyyi sunna kon xëy na am na lu ko cay war ngir mu tas li yox ko ngir mu réparé ko ngir mu defar ko loolu man ko wàcc kon ñaareel bi suñu Ablaay mooy yéeg gi muy yéeg ci bu dee dox Safa ak Marwa ci ñaari xeer yooyu kon ndax Safa ak Marwa ñaari xeer na ay montagne la kon nga yéeg ba ca kaw day nekk loo xamante ni mooy sunna ndax euh, ka ko doon def muy saarata ba muy jaabante ñaari palaas yooyu danaan def bu dikkee ba ci doj wi yéeg ndax dana gis kuy ñëw ngir xeetli ko wala déet mhm. kon loolu la def moo tax kon nag fekkee nit ki man na ko rek daanaka. def ko day gën a jege di ñaari doj di yéeg ko wàcc. waaw di yéeg wàcc ngir lan séentu ba xam ndax da ngi ñëw. mën koo xet li ci euh, euh, xaala boobee. mu nekkoon. Mhm. macha allah. Mhm. nga xam ne kon euh, ba ko ñetteel mooy léegi am na bërëb boo xamante ni moom la ñu tuddee batnu masil nee nañ mu ngi nekk ci diggante Safa ak Marwa. Mhm. nga xamante ni olof yi dañ koy wax naan ñaari poto yu nëtëx ya. noonu lañ koy woowee. ana maanaam fekkee nit ki dem dama ba toll foofee dañ koo sant mu gaawal dox bi dañ ko sant mu gaawal waaw mu gaawal dox bi hmm. loolu nag moom xay na la ci nekk ay xegam euh, lu ñuy jàngale la wala boog ànd waaye daal li ci li ci am solo mooy mooy sant nañ ko maanaam bu fekkee ne dem na ba def safaanoo maanaam bu tollee ci bërëb ba ñuy wax bat nu ma siil te ñu koy wax ñaari poto yu na tax ya dañ koo sant te sunna la mu gaawal dox ba foofee bu ko mënul tamit mu dox nam mën a doxee rek ndax ba léegi da ngay bàyyi xel ne li ñuy wax sunna la am hmm. na maanaam bàyyi ko du yàq aj ga man nañoo jël dara daal lii mën na ko defar. dëgg te tey ko nag waaye fekkee maanaam ñàkk ko ñàkk koo mën a tax nga bàyyi ko tamit moom euh, amul la ci euh, fekk. Hmm. kon ñett a ngi noonu. Hmm. mooy wa suraatu rijaali fi batni masin. Hmm. mooy saalisatu albaañ. nee na bi ko ñeenteel. mooy du'aa'uhu fawqahuma. léegi nag bu demee ba yëg ca kaw doj wa nag. ndax ne woon nañ bi ko ñaareel mooy buy dox sama mu mu yëg ci. kaw doj wa hmm. ñaar yëpp moom ci àgg mu mu yëg da ngay mën a mu yëg ci nag muy ñaan ñaan boo xamante ni nee nañ ba xayri raddin amul limite lu ko neex lay lu ko neex lay ñaan loo bëgg rek mën nga faa ñaan hmm. bu dee bu yàlla dogalee mu dem fa bu ko neexee mën naa ñaan suñ borom may ko bu dikkaatee takk soxna hmm. ndax xam naa loolu rek moo nekk ci <laughs> xel mi waaw bu dee sëñ Mor li moom xam naa day ñaan dem États-Unis rek wala am ci. wala am <laughs> <laughs> yow xam naa borom baax da ngay ñaan suñ borom. waaw ñun moom def doon mënut saa tax rek. <laughs> est-ce que waaw xam nga ñoom moom seen i xel daa a a <laughs> xam na ñoo xam ne moom ay doon na leen ñaan foofu. ay téléphone ak. comme lu waay ñaax ñaan ñaan moom. waaw nga xam la kon nag maanaam bu yàlla dogalee ba nga dem fa. Hmm. lépp loo xam ne mi ngi sa xel mi rek. Hmm. Hmm. suñ borom nga ñaan ko te moom li mu yor sëñ Ibrahima ko dara waaw mu may la kon wax dëgg yàlla ñaan ko mhm. ñaan ko mu may la kon sëñ Ibrahima boobu mooy ñeenteel bi mhm. muy doa fa fawqahuma mooy bu demee ba yéeg ci kaw safaak maroon nag léegi mu ñaan ay soxlaam te ñaan googu amul fuñ ko tënk day mhm. ñaan lu ko neex rek ak lu mu bëgg ak lu mu bëggal keneen waaye nag ñu bàyyi xel ne ñaan moom li sa gën mooy booy ñaan nga yéenewaale ñëpp booy ñaan nga yéenewaale ñëpp insha allahu taala kon day mel ne ñeent yooyu moo ci Euh, sunnay aj ba pare ajuwaat ci dox diggante Safa ak Marwa. Mhm. nga xam ne kon bu ñu boolee ñett yu ñeent yu njëkk yi ak ñeent yi ci digg bi ak ñeent yi. Mhm. dañu am fukki sunna ak ñaar. Mhm. nga xam ne kon loolu la sëriñ bi indi ci téere bii nii. jëmale ko ci aj waaye nag wax nañ ne aj gën naa yaatu. nga xamante ni am na ku baax koo xamante ni am jàngaleem lu leer naññ la tey dama dëgg yàlla moom kuñ xam la ci ak dëggu kuñ xam la ci euh, ak mbaax muy sëñ Abdourahmane Mbacke daaru moxti defaat na beneen kaset boo xamante ni gën naa yaatu mooy ci aj ak ak euh, euh, umra xamante ni boo fa demee yaakaar naa te bëgg ay leeral dañ nga fekk lu gën a yaatu lii nag moom ak tënk la rek ab tàmbale la ndax xam-xam moom dañ ne euh, buntu la boo xamante ni dañ la wax caab caabi jaa ngi rek boo ubbee ba dugg nag la fa nekk moom yaa xam noo koy jëlee ak noo koy jëfandikoo waaye nit moom di la toggal ba pare taajal la daana la tibbal tibb jox la ba pare nag di la di la wanaasul kon li ñuy jàngale fii dañuy wane buntu rek bu ko defee. Mhm. nit ñi mën cee joggi ba. Mhm. dab lañ bëgg a dab incha allah taala kon xam naa. Mhm. loolu mooy li nga xamante ni. andi woon nañ ko tey. bëgg koo jàngale bëgg koo fàttalante. kon xam naa bu fekkee am nga ci loo xamante ni da nga ko ci taxaleex taxaleex. tarkalla nga baax ko mbokk incha allah taala. tarkalla jërëjëf sëñ Abdou ci firin wu am solo bu matale bi nga xam ne. Eh, indil nga ñu ko ak leere yi nga xam ne baaxoo ñu ko indil saa boo firee eh, eh, béy di ba noppi yeneen leer yi nga xam ne daanaka da ciy am solo lool lool lool nga xam ne ni ñu détaillé fukki sunna yi ak ñaar yi nga xam ne ñoo aju ci xaj ak ni nga ko leeralewaate ni nga ko teqantalee ba ñëpp man koo mën a comprendre ba képp koo xam ne yaa ngi koy teewlu ni nga ci mën a xamee dëgg dëgg dëgg sunna bu ne ak fa mu aju ak euh, la mu àndal mu doon lu am solo loo xam ne yàlla na ci jullit yëpp ñu xam ko donte amugoo moyens yi dem màkk donte amugoo kàttan gi wala amugoo gi it waaye farata la goo xam ne dafa euh, nekk ci yow tey da ko war a xam nga xam ne képp koo xam ne ab jullit nga yell na nga xam ci mboolem ponk yi diine yi mboolem fànni diine yi waaye bul ne déemu màkk rek waaye mënuguma dem màkk rek du ma jàng ni ni aje yooyu noonu ndax daa bokk ci ponk l'islam kon yell na ñu jàng bu baax te sëriñ bi indi nañu aw lay ne ko sëriñ Abdou waxee sëriñ bi ay ñaanga yu mat sëkk yoo xam ne lépp lu ci bëgg xam dees na ko ci xamee ndax daanaka lii mu leeral ci sunnay aj rek leer na goo xam ne daanaka képp koo xam ne déglu nga ko sax Euh, ak foo man di nekk di nga ci mën a xamee sunna yi dëgg dëgg dëgg ci loo xam ne da waroon laxas dem ay at pour jàngi ji ko nga xam ne yëpp ay tawfiq yoo xam ne suñu borom defal nañu ko kon xam naa ne comme day mel ne bunt bi foofu la yem muy sunna yi aj mu bu am solo comme gannaaw bu ñu jógee ca farata ya indi sunna yi euh, kon bunt yi noonu lay avancé kon xam naa day mel ne suñu jëraay bi di ñëw ñu ngi ciy war a bunt bu am solo boo xam ne mooy xaatimatun bi muy bunt bu am solo boo xam ne xam naa ne moom it tawul ci xaar moom looy gën a dem rek muy gën a am solo luy gën a dem ñàngale mi gën a am njariñ di gën a am tawféex kon xam naa euh, amuñ leen loo xam ne luñ ci mën a dolli la ndax euh, njàngale moom li ci waroon yëpp def nga ko ba mat sëkk te leeral li leer na naññ naññ naññ naññ duñ def lu dul déglu ak ak topp rek suñ borom may ñu dégg ak topp euh, kon bu ko defee ñu bàyyi la kàddu gi rek nga nuyu siyaare tàggatoo mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo lay seetaan ba jëmmi jamono incha allah. Ah, alhamdulilah rabbil alamin kon ñi ngi gën a santaat suñu borom subhaanahu wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal Cheikh comme ni ñu koy waxee chaque jour rek ndax ak yàggam fi njëriñu lislaam la ji ji maanaam ëpp na murid gi moom yitteem waaye njëriñu lislaam la ndax kenn ku nekk moom taxawaayam gis na ko zaahiram na baat na kon kooku wax dëgg yàlla euh, ñaanal ko rek la ab jullit war a def bu fekkee ne yéene na lu baax te ab jullit moom chaque daa war a yéene lu baax ñi ngi sant bu baax a baax baax ci jataay bi ndax wax dëgg ndax wax dëgg yàlla xam nañ ne ñun ñu koy def sax ñu ngi ciy dolli ko kon ñi nga xamante ni ñu ngi déglu di ñu teewlu lépp loo xamante ni gis nañ ko ci muy njariñ rek nañ ko sant yàlla te ñaanee lañu ko suñ borom yokk li ñuy sàkku muy xam-xam bi te kàttanal ñu bàyyi ñu fi bàyyi fi ñëpp ba lépp loo xamante ni am nañ ci yéen rek ñu def ko lu kawe suñu jor bàyyi fi bépp jullit boo xamante ni yéene na lu baax rek di sant bu baax a baax a baax ñi nga xam ne ñoo taxawal lii muy daara Hizbut daa Daaru fii ci Dakar ci jëwriñ ji sëriñ Mbacke Thion ànd ñu àndal ñoom Baye Dame Diop ak ñoom suñu Ablaye suñu Souleymane Fall ak ak sëriñ Samba ak Baye Moussa ñëpp rek ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax seen liggéey wax dëgg yàlla ay mag yu baax lañ te itam mm-hmm. bañ dalee ànd yàgg na tey itam wax dëgg yàlla pësir rek dañuy gis si ñoom waxtu wu nekk. nga xam ne ñoom liggéey bi saa boo leen ci xoo maanaam saa boo leen ci gisee rek sa xel day gën a dal tey tam wax dëgg yàlla da ngay gën a jëf ngir sëriñ bi ndax ñoom seen jëf yëpp sëriñ bi lañ koy seereel kon ko ànd ak ñu mel noonu day baax loolu maanaam ngi leen di bàyyi xel foo toll di sant goney daara ji sëñ ñoom sëñ Morli ñoom sëñ Moussa Thiam sëñ Ousmane jóob ak ñoom sëñ Fallou Ñigëg ñu bëree bëri ci daara ji wax dëgg yàlla seen pëseef euh, lu kawe la wéral leen ba nekk ay murit saadex nekk ay mag yoo xamante ni mag yuy tegtale ak yoon la te yoon di yoonu baax di sant mbokki taalibe yëpp yëpp yëpp ak mbokki deret yi di sant dëkkandoo yi ak xamaale yi di sant sama ñi nga xamante ni ñoom la ma yàlla booleel ci xasida yi muy ñoom sëñ Modou Guèye ñoom sëñ Ndiassé Amar déedéet jànkaru ndaw yi ndax ay tutànk lañ ba léegi ñu <laughs> bëggal nit ñi ci xasida yi alaaji nag ñoom sëñ Cheikh Fall ak ñoom Omar Guèye Baye Sall ñu bëree bëri rek di ñaan suñu borom kàttan na leen ba léegi li nga xamante ni am nañ yéene liggéey ko ci xasida yi suñu borom defal leen kàttan bañ àggale ko ni kaw seen yor te musal leen ci bañ a gis seen bopp nag ñoom suñu Seex Siise waaw ñoom laaj ñaga ñoom laaj Québec ñoom Moussa Dieng nag ñëpp <laughs> di sant bu baax a baax a baax hmm. mbokk jullit yëpp rek hmm. mag yeeg rakk yeeg ñëpp rek sëñ Ibrahima Mbacke Seck sama mag ju baax baax la ca Touba sëñ Ahmadou Bamba Seck tamit sama rakk la yàlla hmm. ñoom sëñ Seex Seck ak ñoom sëñ Mbacke Seck ak ñépp rek kon xam naa bu fekkee ne wax ji guddul suñu Ablaay mm-hmm. dañuy jëm a tàggatoo fii rek mm-hmm. di gën a santaat yàlla mm-hmm. di gën a julliwaat ci yonent bi di gën a ja fedd di waat suñu jaayante ak Cheikh na Ahmadou Bamba di gën a ñaan la suñu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu wér kon lépp loo xam ne dëng na ji rek ñu ñu doon wax la lépp lu jub suñu borom subhanahu wa taala la kon wa axiru daxwaana alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëñ Abdou yow it ñoo ngi sant bu baax ci yitti ji ak pasteef gi ak xam-xam beeg euh, cawarte gi nga xam ne waxtu ne yaa ngi koy indil mbokki taalibe yi ak mbokki julli yi comme ni nga koy waxee rek xam naa sunu ziar bi yëpp dañ koy teg sa loxo mu yóbbaale jëm yi nga tudd yëpp naa bu limee dañuy joom comme noonu ko tudd ñoom ñëpp rek euh, ñoo ngi jël sunu ziar dugal ko ziar sëñ Abdou bu mu yóbbaale ñu ziar bopp kon naka noonu noonu la ñuy ziaree moo di waa daara adamul marti yi nga xam ne ñoom it waxtu ne dañuy topp jotaay bi ci njiital sëñ Yuusuf al Xayri ak sëñ Xaadim Mbàkke moom sëñ Ceerno moom sëñ Muntaxa ak mboolem ñu nekk ca daara ji yëpp rek bu ñu limee dañuy jóom ñu leen di siyaare baax eh, xam naa ne ñoo ngi woon ci liggéey boobu nga xam ne sëriñ bi joxe na ko ndigal muy wàllum eh, lu aju ci eh, alxuraan jeeg yooyu noonu la ñuy waa daayira ma Fatahul Bichri sëñ Ousseynou ci Touba Almadi sëñ Masila Mbuub États-Unis ak soxna ku ma soxnaam ak mboolem waa daayira Almadi bi yëpp rek ñoo ngi leen di siyaare bu limee dañuy jóom sëñ jàttar mi nga xam ne mooy jëwriñ ja di siyaare waa Xidmatul Xadim ku Masalikul Jinaan di siyaare ñoom ñëpp rek nga xam ne waxtu ne dañuy baaxoo di bàyyi xel jataay bi ak liggéey bu am solo bi nga xam ne mooy xam-xam ak njariñul eh, yoon wi di njariñul diine di njariñul eh, jullit yëpp kon noonu la ñuy siyaare ñëpp rek di siyaare mboolem jullit yi ak mboolem taalib yi nga xam ne ñoo ngi bàyyi xel liggéey bi waxtu ne ak di bàyyi seen yitte jëpp di ñu seetaan fu mu mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew moo xam ci YouTube bi la moo xam ci Facebook bi ak fépp foo xam ne yéen ngi bàyyi xel seen télévision bi Xaza TV ñoo ngi leen di siyaare te di leen euh, ñaanal di leen defal euh, di ñaan suñu borom mu defee leen tawfiix defal ñu taysir defal ñu jàppandal fajuk aajo zahir wa baatinan te defal ñu dégg ak topp ba mën a jariñoo mbindum sëriñ bi mën a jariñoo li nga xam ne moom la ñu sëriñ bi di jàngal ndax buñ ko defee rek buñ ko xamee buñ ci nekkee muy si njëriñu àdduna ak àllaaxira di siyaar suñu réalisateur suñu Moussa Thiam ak moo la ñu àndal ci liggéey bi di siyaare sëñ Morli ak mbooleem ñaan ko ñi mu àndal ci lépp ci waa daara jekk ak li ci aju di siyaare ñëpp rek di leen baal xaq te di leen baal xaq di leen jox dig daje insha allahu ba sunu jotaay bii di ñëw ci daari xam-xam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërë ngeen jëf